soo daan lu ngeen gëm bay gaaral suñu yónnee sa nga soo daan mooy bay looy aawuzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi lazi xalaqal xalq wa ja'ala minhum rusulan wastafa min rusuli muhammadan wa ja'alahu akramal rusuli wa ja'ala ummatahu akramal umam sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa mbokk yi ginnaaw bu ñu ubbi ko ci turu borom bu màgg bu tedd bi julli ci yonent bi Seydina Limaamu Laay alayhi salaatu wa salaam ñoo ngi nuyu ak di ziar sunu xalifa Seydina Baay Abdullah di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak wér waaye di wàccee nuyoo bi ak ziar bi sunu soppe sunu xarit waaye sunu royuwaay waay Serif responsable moral bu daayira xadara bi di ñaanal yàlla. lépp lu mu yéene ci diine maamam ji yàlla defal ko lu kawe njottam ak taalibe yi nekk ci ginnaawam yépp tey nag ñu ngi ñëwaat ak yéen seen pàcc bu mujj ci émission bi nga xamante ne moo di yóbbalu koor ñi ciy jàngale rek lenn ci njàngale Seydina Limaamu alayhi salaatu wa boo demee sa xutba ba Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam ma ngay wax naan fajtahidu fil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar na ngeen farlu nangeen ngeen góorgóorlu ci di digle lu baax waaye tamit di tere lu bon yonent bi salallaahu alayhi moo wax ni al amiruna bil maaruufi ñi nga xamante ne dañuy digle lu baax wa naahuuna anil munkar ak ñi nga xamante ne dañuy tere bon ala manaabiri zilli fi arsi yowmal xiyam ala manaabiri fi zilli arsi yowmal xiyam mu ne ñi nga xamante ne dañuy tere lu baax ak di ñi nga dañuy digle lu baax ak di tere lu bon yowmal xiyaam ëllëg yowmal xiyaam ñu ngi keroo ci keru aras foofu nga xamante ni ker du fa am waaye ñi nga xam dañ daan digle lu baax di tere lu bon ëllëg yowmal xiyaam si suuf aras lañuy ñuy keroo mu waxaat ba tey daal ni wa taawanu na dimbalante boo amee sa mbokku jullit boo tane na ko dimbali waaye ta saabaru na ngeen muñalante wa taafu di leen jéggalante ni ñuy jéggalantee nag koo tooñ nga jéggal ko ku la tooñ tamit nga jéggal ko mun te raaxamu déele yërëmante koo ëpp doole nga yërëm ko tamit mu ne wata naa saxu di leen yëwanal di leen rafetal ci seen diggante wata naa saxu bii nag Seydina Limaamu alayhi waxoon na ko ci kaw boo xoolee suñu émission yi jiitu waxoon nañ ko foofu mu ni wa aslihu baynakum bil maaruf mooy na ngeen yëwénal na ngeen def seen diggante njekk ak teraanga moo tax mu ñëwaat fi daani wata naa saxu waaye di leen yëwanal inna allaha kaana bil muminina rahiman mu ne yàlla kat ku bëri yërmande la ñeel jullit ñi kon lii mu lim fii mu ni taawunu dimbalante bi te saabaru muñalante bi te raaxamu ak yërëmante bi ak yéwénal bi rafetan bi lii lépp suñ ko defee de yàlla ku bëri yërmande la si jaamam ñi kon su boobaa yërmandeem mën naa wàcc si ñun mu ne fa man yaamal mis xaala zaratin xayran yara képp ku jëf lu baax lu toll ni pepp atom ëllëg yow mal xiyaam nga ko gis mu ne waaye tamit waman yaamal mis xaala zaratin charan yara képp ku jëf dara lu bon lu toll ni pépp atom ëllëg yow mal tamit dinga ko gis kon nag mbokk yi ñu góorgóorlu yokk suñu ay jëf yu baax waaye tamit wàññi suñu ay jëf yu bon ndaxte àdduna bi jeex na ba pare soo xoolee libaas ña mooy wax sa way wa naan mboolem sëriñ si raw na leen ci waare teree ko digle lii la njool mi doore ñu wàccee foofu kàddu yi lu si jub ñu xam ni ci borom bi la subhanahu wa taala lu ci dëng ñu xam ne man maa gàtt xam-xam di leen jox dig daje yeneeni émission si ak waa xadara bi TV wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu